waaw d' abord tout d' abord di di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mhm. donc ci yàlla la ñu jógee te ci moom lañuy ñuy dellu mhm. donc di wax rek ne moom moom euh, rakk la woon lépp la woon ci ci ñun donc def li mu war a def nekk ko xale bu yaru donc Eh, jàpp ñàmburam liggéey loolu lañ ko xamee. Mhm. waaw donc am lépp lu muy def daan na concerté wu ak nit ñi di jàppale ni jàppale ñu taxawuñ nag ci lépp nag waaw loolu moom muy tey muy suba yëpp dañ koy wax. Mhm. waaw ndax moom vraiment eh, gàcc ngaalaama ndax li mu waroon def yëpp def na ko. Mhm. waaw donc parce que loolu rek lañ ci amoon li ci des daal lenn rek la mooy taxaw di ko ñaanal. Mhm. yàlla yërëm ko te jéggal ko xaare ko aljana. Mhm. ndax la ma waroon def yëpp def na ko. waaw ba pare te li li ba pare yaru cest à xam nga nit. Mhm. musu mu mu man cest à benn instant sax dama doon danga doon da ngay jaaxle. parce que da ngay euh, da nga koy gis mënoon na ak notoriété bi mu amoon ak yëpp.

bañ na ko ba Dakar sax bëggu ko woon bëggul woon sax du resté à Dakar fi mhm. il il resté këram fële à Saly la daan ñëw bu ñëwee foofu la daan toog mhm. pour bañ bu duggee bu daan bu daan ñëw Dakar sax pour seeti nit ñi sax mhm. bu daan bu daan bu daan ñëw Dakar bi circulation bi ak jàppal bàyyi des comme ça mu ne suñu fii daal sax parce que il est toujours loolu mës il est toujours resté dans son calme calme loolu noonu lañ ko xamee loolu Mm-hmm. waaw léegi léegi léegi Lamine yow mi grand frère wu Pape Bouba Diop. ban yóbba image ngi nii waaw ban yóbbante nga am ban yóbbante nga am euh, Lamine. Mm-hmm. Euh, ci euh, sénégalais yi ci état bi nga xam ne mu ngi leen di taxaw pour que néewu Pape Bouba teel a ñibbisi lan moo di seen souhait ci instant bi nga xamee ni diis na pour ñëpp mais moom laa wax nii ku ñuy jooyle dootoo jooy. Euh, xanaa rek di taataan ci yéen kàddu yéen ñi nga xam ni kenn waru leen jiitu ci lii. waaw de toute façon ñu ngi xool daal par rapport ak les autorités. waaw après nañu xool par rapport ak ñoom décision yi ñu jël. en mhm. en collaboration ak ñoom ñu xool yan décision yi ñu jël. Mhm. pour xool bon hommage bi ñu ko war a mën a rendre par le peuple sénégalais parce tamit dañuy wax tamit bon il a marqué une page de l'histoire